na ak bu gëb fam taxaw jooy daal di ne nañu ketal walf te ba mu soxlaa ndimbal dëgg walfa ko ko jox ka nga xam ni mooy ndeyas su moom it jooy na daldi ne ñu ne wal fajri de jeex na daanaka dañ ñoo jaale te deewaguñ dégg nga ana dégg mu daadee yëkkati ab kàddu jooy ndeyasu ka bind xibaar ba internet la internet noonu na ndeyasu takk naa ko wala boobu yëgu leen ko bu doon waxi internet net na kon maa ngi koy liital am déet <laughs> kon yaakaar naa ni waxi internet waru caa sukkandiku ñoom ñëpp ku ca nekk am na sama numéro lu tere ñu woote ba noppi soog a mun a taxaw ne ña ngay jaal waaye woote wuñ ba noppi soog a jaal loolu kay xanaa leneen nga bugg dama ne wal fajri mi ngi fi tay ab taxawaayam taxawaay la boo xam ni taxawaay bu dëgër la defe naa ni lii ku ko gis xam ni wal fajiri ma nga ca kaw tàccu leen loolu waay dama ne ñu ngi dugg ci am at muy ab 2017 kon la ma ca bugg mooy ma ne ñu àndandoo wayandoo benn way yéen ak fans yi ku ñeme na taxaw ah. ku ragal na daw ah. wal fa ngi ñëw